ci yëm Serigne Touba dama lay dëggalal rek nee na booy wax ak moom doo ko mën a yey ndax loo wax mu teg ci dara ecole bi ngeen di romb ci ngaabo tubaab yi ñoo ne woon sëñ Touba dañ ko fiy def te yaay wut ña fay jàng te da ngay fay kay jàngale te yaa koy sàkket mbaa tabax ko sëñ bi nangu waaye ku dem doo jàng mooy wax nee na ñu ne ko. yaa ngi leen di yabal waaye du njàng sëñ Tuba dema nee na mu ne ko yabal leen ñu jàng laa man waaye duma leen gàccim njàng ne ko ndax yow ku la gawoon ci jàng wolof dana la neex na nga ko xool da ko ci gis nee na ñu ne nañ ci sàkk pexe ñu wut benn tubaab bu tudd Fatina Touré yabal ko nga bu mu di fa jàngale waaye amu fa lu mat weer jébbalu ci sëriñ tubaa ne ko damaa bëgg tudd saw tur ñu tudde ko Ahmadou Bamba Mbakke wax na ne mas naa invité Serigne Touba Diourbel da nga ko ca gis mu ñëw ma ne ko mu ne ko man tey doyewuma la service danoo baaxoo bu nu amee xarit di ko woo ngan ma bëgg nga wax ma loo bëgg sëñ Touba ne ko defaral ma kafe waaye ci sama kanam nga koy tàngale nee na fekk baayam donne na ci maamam benn cafetière boo xam ne guerre bi amoon diggante France ak Russie bañ fa demee ca lañ ko jëlee moom mu moom ko denc ko nee na keroog laa ko ma a génne tàngalal ko ci café mu ne ma des na ma ne ko ah, mu ne ma suukaru su bekk sama borom daf ma ko tere tel si nga may wutal mu yónni booyam ca ja marché njaareem mu wër wër gisu ko mu ne ko kon jox ma kafe guñ suukarut gi ma naan ko sëñ Tuubaa naan café guñ suukarut gi ba noppi teg ca leneen ne ko kopp bii ma naanee denc ko te bu ci keneen naanati mu def mu baare wax ne dafa mel ne moom dafa xam boppam ndax ni ñu koy wormaale ni lay wormaale boppam moo tax na ngeen xam li ngeen am te dafa am lu bon ci nit mooy complexe ñaare ci am bu audib ak bu fruit bii dalay lay yëgloo sa bopp ba nga defee ne yaa gën ñépp amul njariñ bii xeeb la sa bopp ba nga defee ne ku jóg gën la loolu it bu nu dal màggalu Tuubaa gii nu nekk yaakaar naa ne ambassadeur u Brésil mi ngi fi waxtu wi nga xamee ne yéen yéen a ngi dundal seen màggal jàng alxuraan joxe ñam tudd yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom it ca lam doone seeni aada ña ngay def lu tudd carnaval de Rio de Janeiro te li ci kiimaanu mooy bu ñu koy def état ba day mobiliser moyens yépp te li ci gën a metti mooy dañuy dox ñoom mobile duñu leen fekk ci kër du taxaw benn bërëb ambulance yi day dox watee ndox yi day dox secours yi day dox loolu lu doy kiman la te ay fan lay doon ñu topp leen ba wóor ne ne àggal nañ ci la ñuy def moo tax sunu borom ni wala tahinu fi ibtigaai lqawmi in takunu taalamuuna fa innahum yaalamuuna kama taalamuun wa tarjuuna min allahi ma la yarjuun ñëppay sonn ni ngeen di sonn yéen jullit ñi te yéen a ngi yaakaar ci li ngeen may sonnal loo xam ne ñoom yaakaaruñ ko ci sëriñ Touba mi ngeen tuddee sëriñ bu mag bu ngeen demee ca sud-est asiatique am na fa pàkkub suuf bu tudd Tibet xaw a niroog Touba ci tur am fa dëkk bu ñuy màggal bu tudd Daram Salaam niroog Daaru Salaam ka ko jiite ñu di ko wax Dalai Lama lim tekk ci siin mooy sëriñ bu mag bi bu leen xeeb seen bopp dangeen ciy jàpp te ba a xeeb keneen. mbirum yàlla nag dafa nanguwul bu laxasee xasee yàlla du nangu kenn bokkati la bu ngeen ko seetloo bu ngeen jógee ndakaaru ñëw ba njaareem tableau bi wane fi ñuy jëm bindu Touba Mbacke la bind waaye kenn jëmul Mbacke Touba lañ jëm kiy joxe météo du figuré ci biir kart bi Touba te ginnaaw Touba waxuma njàmbat de damay leeral damay leeral mbirum yàlla nim daf dul nangu bu la joxee cër dalay yoral boppam ndax bu keneen jàppee mu wàcc moom du ngeen ci gis Touba li ngeen Fatick yooyu ngeen gis te fii ci bu dee population ñaari million ak nangam ñoo fi ne Seydina Moussa ba ko Firawna meree daf ne l'obélisque biñ ko tuddee woon monument yi ñu doon bind ay turam nañ ko effacé te génn ko dëkk bi waaye xam nga lu ko ci yàlla fayee suuf sépp وأورث الله موسى ولقومه الأرض مشارق الأرض ومغاربها لولا كنت يلا فاي خاتم في تي نيغينا تاد لاج بوك فرعون كين غيساتوت مبوكام سيرن توبا دا نين كوي جوخ تيرم يين طالبي دا نانغو نيرو لي دون jëppul gi gën a rëy ci li ñuy wax ci murit sunu borom daf ko wax ci alquran ndaxte jébbalu mooy maa ngi nii ni ab malade di def docteur rek la ni ab élève di def ka koy jàngal rek la ni ab liir di def ndeyam ji ko jur la bàyyi ko mu defar ko loolu la waaye jaam kenn ko am mu yàlla waaye fala wa rabbika la yuminuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayta wa yusallimu taslima loolu la alquran wax yàlla dafa giñ ne maa ngi giñ ci sama màgg man man yàlla ne yow Muhammad ak lu ñu la mën a wax li ñuy wax du dëgg li fekk dikkuñu ne la jébbalu nañ ci yow bàyyi lan la ak sunu bopp looloo tax Sëñ Tuubaa digle jébbal lii ñu tuddee sujjóot sujjóot doonu ko foon loxo la tudd waaye même bu tuddoon sujjóot yàlla bi mu bindee aadama def ne nañ ci sujjóot ñépp si ci Seydina Yuusufa dafa gént fukki biddéew ak benn di si jot ci moom weer wi ak jant bi di si jot ci moom lu gudd la waaye fa mujj dafa am ba ba bokkam yépp daje ndeyam ak baayam mu teg leen ci kaw lal bi toog dend ak ñoom fukki doomi baayam ak benn tàmbali di sujjóot ndeyam ak bàyyi mi jóg di sujjóot kon xanaa koo bokkal ñu di yonent bu kenn waroon a bañ a sujjóot ci keneen ñooñu duñ ko def ndey ak bàyyi ñoo gën a màgg ci àddina dañoo jóg moo tax mu daal di mel ni ahada achara kawkaban mooy fukki doomi bàyyam ak benn wa shamsa mooy ñaari aba aba ñaari waajuram loolu yépp dafay mat di leeral ak yii nuy def fii jëkku ci noonu li jëkk am gannaaw yonent bi ci ngir ngir mooy abi xanifata te juróom-ñetti fukki at gannaaw yonent gannaaw hijra ci la ko sose malikum nu anas gannaaw juróom-ñeent fukki at ak ñett shafii gannaaw téeméeri at ak juróom fukk ibnu hanbal gannaaw téeméeri at ak ñeent fukk ak juróom benn xadis yi ñuy dajale ibnu ishaq moo jàngal ibnu hisham siira te siira yi ñuy jàng ci senegal yépp ibnu hisham moo ko def te kooku moom itam gannaaw yonant bi am na téeméeri at soog a feeñ bi yëf yi daataa dox dëgg dëgg dëgg mooy a siqt yi wal junayd siqt mooy nijaay junayd iraq la ñu nekk seen ñaari bàmmeel yi dañoo dend ñoom ñoo leeral sharia ba xamne ne da fay andak haqiqatu xaqiqatu kesse moy mooy sakket amuti xer haqiqatu moy xere kesse yu amul sakket waye lu bon bon xer dana taxaw mom bo amul boomul sakket nak bo amul xer dadul taxaw waye nak dañ len di bolé ñu dik ci serigne salihu ñi nga xamne nak ñooy bokki jullit yi bokki wëlëre yi dama leen di sant ndax nañ war a mel mel nañ ni ndax dañoo wax ne koo yilifut ku ne sa nawle la kon nawloonte lan seq ñoom te nawloo nañu sëñ Saaliw jàpp nañ ko waaye nun ñi mu yilif nag dafa am nun war a jëflante ak moom ma di leen xamal ni nit lañuy màggal ci moom doo ko xool gis ko dëmm yi ngeen baal ma ak dëmm yi kenn du xoolub dëmm xam ne kii dëmm la daane ca biir te kenn xamut lu mu sawa yi nekk ci Houston ci Cap Canaveral lañ xam bay dem ci weer wi kenn du ne xool xam ko te ma nga ca ñoom ñii dem ci weer waa ki ñëw kon sëñ Saalihu nooyaay bi woyof bi yërmande ji bu ñu ko topp nañoo am fuñ ko yem nañoo am fuñ ko ndaxte sunu borom dane wa man yataadda xudud allahi fa ulayka hum zalimun te kenn ku ne it war ngaa natt sa bopp ci mbir mu ne ndax sunu boroom sax bokkaale bi mu ko teree dafa wax ne maa ngi leen di leeral li tax ma bañ ku ma bokkaale te ci yéen laa koy misaal ndax nangu ngeen li ma leen may ciy soxna ak i alal ak i oto ngeen ñëw fekk kenn di ko jëfandikoo ni ngeen ko daa jëfandikoo noonu ngeen ko bañee ni laa bañee mayit sama nguur gi ku ko bokkaaleeg man كن كن نسير بابم نم بجي كوكو آر نم بجي كوكو ماي جام نم بجي كوكو بايك بابم مهات عندكو نحن دا وخد واي بجنو تكت ولف داني بكي بت بند بنت بن بتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصر في الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في الطين أو في الدين والأجانب وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي اعترى من غمه ليس لأمة النبي سواك يا مكثرا صببت لي جدواك واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وذد من حسدوا واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي التعرف واصرف قلوب المؤمنين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سوى واشغل عبادك